alors cela dit pour man on est dans une élection inédite élection inédite mooy élection boo xam ne le président sortant au Sénégal bokkul et ki ñu ne c'est le principal opposant aussi bokkul donc ça ça ça amène beneen reconfiguration de de de cette élection là. le président bokkul. le président sortant le président sortant bokkul. Euh, ki ñi ni moom mooy incarner l'opposition radicale bokkul. bokkul mais bokk mel na ni bokk nañu parce que. colistière comme comme aux États-Unis xam nga boo amee un colistier ou une colistière. mais je mets une day day day nekk ci list bi boo faloo mu faloo. mais fii ah. on sent que président Macky mu ngi battre campagne. oui mais c'est mais c'est que Ousmane Sonko tamit mu ngi battre campagne. sauf que le candidat de de du président Macky Sall bu bu kooku faloo président Macky du faloo de day dem. mais c'est la continuité. Euh, peut-être. mën na xëy tabb ko. parce que rien ne l'empêche oui, mu tàbb ko ministre wala premier ministre oui bon bon dans dans dans dans dans la tradition politique wala républicaine je pense pas qu'un président va devenir ministre bu ñuy wax tradition pousse nañ suñu ay élection te bon je pense que le président Macky ak ni ma ni ma gis que mu amee ay ambition <laughs> je pense pas qu'il va redevenir un ministre de dara duma bett ensuite mais bon loolu c'est par humilité sax yow war nga mën a jiite réew ba pare tabb la. mais peut-être qu'il sera directeur de cabinet peut-être qu'il sera mais comme moo fi juddu ak ak ak ak ak manteau président. je suis d'accord peut-être qu'il sera la euh, ce président fal la ce dauphin fal le premier euh, directeur de cabinet. bon peut-être qu'il sera un conseiller parce que pour moi. wala ministre des affaires étrangères il a de l'expérience <laughs> a de l'expérience mais mais noonu je pense que lan moo koy déterminer mooy le vote des Sénégalais donc nekk gu ñu foofu instant bii nii xam nga fan lañ nekk. on est en pleine campagne électorale avec 19 candidats qui sont en train de parler aux Sénégalais ñu ngi waxtaan ak Sénégalais yi ñu ngi dugg et yaa ngi koy gis ci ci journaux yi aussi pour man y' a y' a deux choses instant bii nii euh, doyen suuf sànq wax na lu am solo sondage lu scientifique la. Mhm. dafa basé aussi ay critères. Mhm. dafa voilà euh, science sociale la. Mhm. xam nga loo xam ne tamit statistique la et cetera et cetera. su su mais am na loo xam ne boo ci génnee dootul sondage propagande la. Mhm. et loolu faw ñu def différence bi. maintenant nag chapelle politique yi ku ci nekk dans ta stratégie mun nga jàpp ne dans ma stratégie de communication je dois présent partout y compris ci yenn journaux yi léegi yow soit nga nga faire en sorte que journaux yi nga jënd fa ay ay pages publicitaires. wala nga waxtaan ak yenn journalistes yi nga xam pour ñu ànd ak yow et cetera et cetera y a tous les moyens bi nga xam ne pour faire passer ton message et faire euh, comprendre aux Sénégalais que mon candidat est le meilleur. Mm-hmm. que boo ko boo ko boo ko joxee dëkk bi dëkk bi dina dina dem kii loolu moo am instant bi nii. et euh, malheureusement li nga xam ne bon maa ngi koy ñaawlu aussi te man pour man moo waroon gën a euh, am doole ci kii bi même même si gars yi ñu ngi ñu ngi koy defan mooy le débat programmatique gars jiital programme bi en avant. gars yi waxtaanee dëkk bi waxtaanee fan la Sénégal jëm dans cinquante ans cent ans pour parce que pour man a président c'est ah c'est ça c'est pas une vision bu yem deux mille trente cinq je suis désolé <laughs> c'est une vision qui dépasse cela il faut que nga mun xool fu soree soree sore wax ne lii nii dans cinquante ans dans quarante ans dans le temps long damay déterminer beneen trajectoire pour Sénégal loolu noonu xaw nañ ko noyé un peu par un peu propagande bi xaw nañ ko noyé un peu par les attaques personnelles et cetera am loo xam ne ça nous intéresse pas et mooy dugg ci li kilifa gi doon wax tout à l'heure la majorité silencieuse qui est chez elle qui observe qui regarde et qui est intéressée par euh, tout ce que le Sénégal va devenir dans les prochaines années mais de manière holistique maanaam du juste ci Euh, ci ci ci benn domaine mais ci agriculture ci éducation ci politique étrangère et cetera cetera parce que président de la république ci yooyu ñëpp ñëpp dañ lay dañ lay xaar dañ lay xaar nga apporter ay solutions tey aujourd'hui la vérité mooy président sortant bi sax nangu na ko mooy y a casse-tête de l'emploi des jeunes ba ñoom ñuy dem di dee. ci àll bi. le président sortant sortant Macky le président Macky li mu wax euh, Amadou Ba la dernière fois. maa ngi gis affiche yu Amadou Ba yi mm. mu ni euh, Amadou Ba candidat des jeunes. non le bon kon kon kii dafa bëri. Euh, bon le candidat des jeunes. tout le monde bon. va dire parce que la xam nga dans damay faral di wax ne bu ñu jëlee même principe démocratie le le la l'un des principes de la démocratie mooy la loi du plus grand nombre. le plus grand nombre est <laughs> jeune. oui. Donc si tout le monde veut draguer ce, plus grand nombre-là. Malheureusement, les différents régimes yu succédé fii nii mais ils n'ont pas apporté des solutions à ce plus grand nombre. Je suis désolé. Et président bi moo ko wax mu ne c'est un problème et c'est un casse-tête malgré tous les instruments yi nga xam ne teg nañ ko fii nii avec cette foison de d'agence wala d'instruments yoo xam ne on l'a mise en œuvre pour qui mais ça c'est un problème. Mm. Et donc c'est une bombe à retardement. Donc il parce que fii temporalité bi ah c'est une temporalité d'urgence mmh, il faut que ñu casser un ouais. peu ce flot de jeunes qui qui est en train de partir au Nicaragua wala jaar ci désert yi wala dugg ci géej gi te loolu la ñu soxla un président qui vient régler les problèmes maintenant nag dina compliquer trop cinq ans yi ñu jëm ce pays complexe y a beaucoup de président bii du ñëw ku mu mun ci doon. pour mu redresser baar bi dans les cinq ans. dina métti trop xaw ma nan la nag ban comment la musique va prendre nan la nar a def ba nga xam ne fen la nar a tàmbale cetera peut-être que man boo ma laajee lu ma intéressé profondément mooy l'éducation pour man le système éducatif est vraiment des déstructuré xam nga et à terre c'est grave pour man nag te te dëkk xam moo koy tabax da tabax xel yi ndaw yi dañ leen dañ leen war a tabax mm. loolu noonu bu ñu tabaxee nit ñi. rek mun na am ñu am naataange suba ko loolu noonu pour man am na solo ko